bandiraɓe jolfo ɓeɓe que ɗo ande mi ala jolfo haa de de. men yahi to jangde de mi ala pullan Hey, eh allah allah ɗon kominen fof fotte man. allah allah eh, allah allah ɗon ko minen ala fotte inna lillahi wa inna ilaihi raji'un euh bakam bu ñam dund rek di nga ñam de waaw mom nak dañu jitu waye ñu diko ñaanal waaw fa mu jëm dakh fi mu joge waaw ndax xol bu rafet da waaw amul won nak ben artiste xaar ma ñi mu waron def dom ci art bi def na len dom ñi mu morom def na len morom donc ñun ñukoy ñaanal bu baax ñaan dong la fi dese nañ ko ñaanal te taxaw njabotam waaw ndax ñi fi bayyi suñu njabot la waaw ñun daal ñu ngi koy jaale man ba waaw. léegi dundam ci wàllu théâtre yéen ñi nga xamante ne tolloo ngoonoon moom ak jamono na nu ngeen gisoon dundam. waaw nu ñu gisoon dundam mooy koo xamee ne nii du mer ñëpp la mën a maase ñëpp la mën foo ko fekk bu nit ñi toogee ni sax mu ñëw créer benn compte pour nit ñi ree xam nga kon kooku bu rafet la doon jàmm rek la doon woote jàmm jooju ne yàlla na ko fekk foofu waaw moom daal nitu jàmm la woon nit ku baax la woon moom Bass Diakhaté yàlla na ko yàlla yaram waaw. yàgg ngaa suivre théâtre ana ban épisode am wala ban ban kii am moo la gën a remarqué nga xam ne kii c'est un vrai artiste. waaw moom nga li mu li mu def lépp dafa rëy te neex mënoon ni sax bii wala baax ndax fépp fu mu téye rek moom day neex waaw man bi ñuy mujjee diggante ma ak moom euh, seede yàlla ñu ngi kii woon ci benn contrat bu ñu lii woon ma ak moom ak ñeneen ñu toog mais foofu ngay xam nit ki bala nga ko xam da nga koy jege. waaw mais dama la bëgg wax ni nit ku baax daal dem na artiste bu baax dem na sunu mbokk dem na waaw xolam boobu mu yoroon nag yàlla rek yàlla na ko teeru fële waaw man daal loolu lay ñaan loolu lay am lu may wax. ana ban conseil ngay jox artiste yi nga xam ñu ngi ci jamono te ñu war a sóoraale bis bu ne mel day am. waaw mooy fii dara saxul ku xool lii tey xool ñeneen ñuy jiitu ñi ñu mag dem nga xam ne dara saxul ñun nag li ñu yàlla sédd dañuy mbégale nit ñi di sonn rek ba xëy dem artiste Sénégal moom loolu la. kon ne war pas mais boy dem rek na rafet na eh, mais tu ne vas pas l'achever, Biren. Maintenant que tu l'as rendu misérable. Je vais en finir pour de bon. Après, je vais respirer un bon coup. Et toi, <laughs> occupe-toi de tes problèmes. Tu en as assez. Trouve-toi d'abord un mari. Surtout, garde-le. Après, on discutera. Un comme toi, je préférerais mourir. Parce que depuis qu'elle t'a connu, Elle est maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sekk. tey Sénégal xëy naxar comme ni ko ñëpp dundee doyen bas Diakhaté. waa maa ngi nuyu Sénégal maa ngi nuyu àdduna ñu sant yàlla bu baax a baax a baax ndax tonton Bass Diakhaté Sénégal ñëpp xam nañ ko macha allah xam nañ ko bu baax ci ay liggéeyam bu rafet théâtre am yu neex macha allah mën a reetaan loo nit dañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare na ndax boo nekk ci àdduna di la doomu aadama yi am na lu luñ ci wax de am nga cëru suñu borom kon dañ koy ñaanal bu baax jabar ngi fi bàyyi yàlla teg ci loxo ci barke yonent bi ñëpp la naqari ndax xëy tey ñëpp xëyee naqar ndax ku sañoon tam dafay toog gu nga njabootam ba ca kanam mais lii la yàlla doo ko dañu sant yàlla bu baax a baax a baax a baax. artiste comme Bass Diakhaté ngeen nekk ci milieu boo xam ne eh, daanaka comme bi sax demewul noonu tuuti moo fi nekk. ngay tëdd feebar lu yàgg kenn du la gis ñu xëy xëy tàgge la te doon benn subvention loolu lu ngeen ci wax. man de xaw ma noonu sax dafa feebar ndax man wax dëgg yàlla gëj naa koo gis mais tamit nañuy dimbali artistes yi surtout ndax ku lay bégal artiste kenn mënu ko fay dañuy war a dimbali bu ñu feebaree ñu leen di faj ngir yàlla ak yonent bi ndax li ñuy def lépp ñun dañuy bégal doomi aadama yi. te am na alal yoo xam dañuy génn di ko dugal feneen taw xaj na ci artistes yi sax. nit ku tawat ko war a dimbali ndax ki feebar ba làqu tey jii man damaa ngi koy door a yëg tey wallaahi te yàgg naa bigal doomi aadama yàgg naa bigal sénégalais yàgg naa bigal mag ñi yàgg naa bigal ndaw ñi kon nañ seeti artistes yi feebar nañu def te yàlla rek tax nañu xool xol yi nañu raxas xol yi nañu tàppe xol yi xool artistes yi feebar ñu dem seeti leen te yàlla rek tax di leen en charge faj leen bi ñu wér dañ leen faj artiste yi dañ leen faj nit ñi du artiste yi dama ci dama ci boole waale ñu bari dañ faj nit ñi nit ñaa ngi nekk seen biir kër yi feebar tawat amuñu kenn ku leen faj nañ seet ci yàlla yonent bi te xam ne li dal bas caxate tey ñëpp mën nañoo dal te tey am nañu yor alal yoo xamante ne xaw ma man man comprendre ma man Sénégal comprendre ma nit ñi bu ñu feebaree dañ leen war a faj nañu dimbali nit ñi dañ dimbali askan wi bàjjen su ñu doon laaj Bass Diakhaté lu mu joué loo gën a remarqué loo xam touché na la lan lay doon. mooy jàng mi ma defoon ak la ma ndeysaan billaahi wallaahi jàng yooyu ma defoon ak la ma macha allah dafa dafa neex dafa dugg ci xolu doomu aadama yi dañ koy ñaanal rek xam am nañ ci moom njort bu rafet ndax ku baax la man de xaw ma ko mosuma ko gis tamit mais ku baax la ndax baax weesul ngay bégal doomu aadama yi waaw ku baax la ndeysaan laaj bu mujj bi est-ce que jotul tamit état xoola monument yi fi jaaroon dem yëpp yoo xam tey France daal di xëddeen daa mel ni mosu ñoo def ci Sénégal dara loolu ana yoon wi noonu mën a tegu ngir ëllëg ba ñoom bu ñu demee dafi am am am fi am ay monument wala rue yoo xam ne sax dana ma àll tournant. waaw loolu tam ci la bokk dañuy xam nga Sénégal lu lu suñu problème da fi nekk di dund duñ la wekk ñu bàyyi ba ñu dee ñu lay tuddee ay ay ay. ay ay fe ay fi jàdd ko rek ay mën loolu lañ lay def buñ lay buñ lay buñ lay boy dund surtout suñu kilifa yi dañ la war a sargal la sargal la dimbali la bi ngay dund waaye dañ man buma buma gañu ma ngi xaar ba kenn fi réy bàjjana nga ne damay bekk di leen dindi len ko par do ko jere jef Baye am ñu yalla defal jamu ñu defal ñu sutura ci barke sayyidina muhammad yalla sammu ñu ñepp yalla may ñu xol yu rafet xol yu labir yoo xamante ne ñun de lu ñu am ñu ngi koy bokk doomu aadama ñun artistes yi ñun ñu am ñu ngi koy bokk doomu aadama yi yàlla yàlla jàppale yàlla ñu defa sutura ci barke nabi xanaa di la jaal seen soppe ah seen dëkkandoo doyen bas Diakhaté ñu xëy tey tàgg leen ko ana nu ngeen yeewoo tey. xanaa naqar ak tiis nag di wax ni rek euh, yal na ko yàlla xare àjjana yal na ko yàlla lépp te xëñu damay faral di wax ni yëf yi kii la horaire la rek ku yegg fa nga war a waaj il faut nga cëppeelu macha allah bas yegg na fi mu war a wàcce wàcc na yàlla na ko yàlla xare àjjana ku baax nag dem na ku mënoon kaf mën a ree oyof lool ikoon la de bas jaxate yal na yàlla woyofal suuf ci kaw bu baax a baax a baax tey moom wax dëgg yàlla ni ñu yeewoo neexul neexul dara dara dara waaye nag yàlla moom comme lii lañu fi indi dañoo tukki si après dañuy wàññeeku ñibbi ah bu ñuy dem yàlla nañ fekk ci li ko neex waaw. kàddu ban message ngay lancé ci diggante artistes yeeg wàllu administration bi mën a am demee bàyyi fi njaboot am au moins li nga daan bëggal Sénégal am ci yow. waaw loolu moom xam naa sekk du yomb de du yomb pour ni nga nekk fi di bégg nit ñi ba dem am ku la wuutu ci ginnaaw ci ci ci euh, wàllum administration bi comme ni nga ko waxee loolu du yomb ñoom koy da ñaan rek booy dem yàlla may la rek doom ju la wuutu mbaa say mbokk wóotu la mais wax deug yàlla ku nekk nang ko natt ci sa bopp rek administration bi moom boo bëggee mu wóotu la kon ñi muy wuutu yëpp dana bari ndax ñi fi nekkoon di bëggale ñëpp te dëddu àdduna bari na bari go xamante ne yàlla daal moo mën a wuutu yàlla yàlla wuutu ci njaboot ji nga fi bàyyi loolu rek la ñuy ñaan waaw parce que bu la yàlla wuutoo yàlla mooy yebal nit ki nga xamante ne war na naa dimbali si moo koy def ci xelam mu ñu wuutu la ci sa njaboot loolu moo ci am solo. waaw xanaa di ko jaal ñëpp rek di wax nag lii moom war naa tax sax ñu bokk ndey ak baay gën a suudewu ndax nag lii moom ku weewul dara dootu la yee waaw ku ne xam na ne Bass Jaxate fii la nekkoon ak ñun ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen tu te ñu ci biir suuf kon lii kenn du ko wuute kenn du ne am naa fulla ba toog ñàkk naa fayda ba dem déggoo ko fenn ku matal rek da ngay dem yàlla nañ yàlla teg ci yoon bi jub